sénégalais qui délibérément viole les lois de ce pays ah. justice tey ko ñu ne nañ ko bàyyi pour lan. parce que day ku mel ni euh, Seydi Gassama nee na du incident bu majeur parce que gis saa waay ñooñu ñëpp amuñu xam-xam. xam nga disposition bi duñ ko génne suñu duñ ko génne suñuy loi kon léegi. nee loo xamante nii euh, privé na nit euh, li nga xam te ne. wala sax sécurité mu mettre en danger qui que ce soit. donc ba pare analyser yow bugaan ngay def. iliva y va avec des voitures macha allah yaatu ngand am doole ànd ak ses gardes des personne yoo xamante ni peut-être protocole bi xamuñu leen xamuñu fu ñu jóge xamuñu ñu ñu àndal xamuñu lan moo leen indi dëgg la buggaan ngay daan nekk ci kanam mais ku la wóor ne amul ku infiltré. loolu yëpp ay mbir la yoo xamante ni moom président Diomaye ñoo ànd teddu. c'est ça. Cheikh Bara. keroog bu ñu jamais de mal à au député. waaw président dugg na doo leen jàll. doo leen jàll. Mara Niass fële Touba. <laughs> bañ koy yóbbu di ko puus juste pour te montrer que ni protocole amul xarit amul mapando donc nag gis na nit ñi bu ñu sonal nit ñi sérieusement parlant lii c'est un problème boo xamante ni moom il a délibérément et sciemment défié li nga xamante ni tey jii mooy autorité donc na assumer c'est ça na assumer mooy à la présidence di ñëw di filmer waa ji pousse ko ne ko taxawal ne la kan kon nañu appliquer loi bi dans toute sa rigueur ci Bougane Gueye Dany dama ne kii pa pa Ousmane fii dara xew <laughs> fii Bougane Gueye Dany moomul nit ñi il n'est pas au de la loi ñu ne au-dessus de la loi Pape Moussa am na benn code bu ama am solo article bu ama am solo bu mu la fi liiral article sept waa dama ne article boobu dañ koy dindi ci suñu constitution wala dañ ko war a appliquer parce qu'il s'agit de Bougane Gueye Dany Seydi Gassama parle parce qu'il s'agit de Bougane Gueye Dany incident mineur la ñeneen nag incident mineur mm. mais yéen est-ce que eh, ñiy wax dama ne sax ñoom est-ce que xam nañ gravité mbir mi en président de la république war a jàll yow ngay buruxlu ak moom alors que tu n'es pas seul treize véhicules nga ànd ak ñoom ne yow da ngay jàll ba pare non seulement jox leen ndigal ne leen topp leen ma mel ni chef de gang. yóbbu ndimbal. ci yóbbu ndimbal dama ne démb man xam nga <laughs> Pa Ousmane <laughs> gis nga dëkk bi gis nga man dëkk bi hmm. fii lu fi waay désinformé dañ lay dañuy informé. fii lu fi waay bind comme ñoom ay gomme crayon la ñu yor ñu dañ koy gomme. Eh, lu Sen TV gis ngeen image yi doon jàllale. Hmm. naan oh. Bakel xaw ma nan ma ngay tàkk. <laughs> Ah. ña ngay manifester ndax lan Bougane Gueye Dany lañu jàpp. yi ma def sa rien ne se passe. xoolal ñaari booy laa jël ñu jël seen deux roues di daw ak man biir Bakel. Ah. pour lan ma xool parce que c'est bien ñu jox la information au téléphone dëgg la. waaye nga gis ci sa kanam gis ci say bët mu nekk ay preuves yoo xamante ni kenn du ko weddi dafay baax. Hmm. deux roues la ñu yor démb. Hmm. may live ñuy def ak man de tour de Bakel. te gis nga moment boobu Sen TV naan euh, euh, Bakel mi ngi tàkk pëna yaa ngi tàkk alors que rien ne se passe tout se très bien ay boy yu sañte toog ci koñ bi laa fa gis teg seen zëm di ataaya premièrement Sen TV non seulement yemuñu ci euh, Bakel mi ngi tàkk dañu ne information bi ñu joxe selon laquelle gouvernement bi yoxe na ndimbal Bakel du dëgg huit milliards huit milliards yi ak ndimbal maanaam joxe nañ fa ceeb joxe fa diwlin joxe fa ay ndox. Hmm. ay dons yoo xamante ni yu am am solo la waa Sen TV weddi ko xam nga loolu noonu nan laa def man hmm. boo yooyu dama ne dem leen ba fañ ko joxe ngeen wan ñu ko en nimage yaa ngi dégg il faut que nag it ñu arrêté gis nga boo bëgg a doon Ousmane Sonko taxut a doon Ousmane Sonko. Hmm. bëgg a doon Bassirou Diomaye fay taxut a doon Bassirou Diomaye Faye. Ousmane Sonko bañ koy jàpp ci oto ba li ngoone naan maa fekkee nan la defoon loxo bi ngoone. serein waaye buggaan nan la def. xoolal <laughs> nii image yi rek maanaam <laughs> image yi ñu jàppee buggaan rek am na boo xamante ni moom mu ngi mel ni kuñ ne tëddal sa kaw laal ah. yaa ngi dégg. bëgga a doon Ousmane Sonko bëgg a nga nekk Ousmane Sonko Ousmane Sonko boo bëggee mel ni moom dangay def yu xeere dëgër image yaa nii am na beneen boo xamante ni moom mel ni kuñ ne rek ay ca jaaxaana ci di ci digg oto bi boobu tamit bu ñu ko mënee may bu baax bu ñu ko mënee may bu baax Bougane tamit nañu baal nañu baal daal baalaale boppam parce que nag mënul wax a wax a wax a wax a wax man boog man personnellement mënut a wax a wax a wax ba ma jël ko au sérieux maintenant je le prends pour un comédien et c'est parce que man Ousmane Sonko comme li may wax day wax yu xeeree xeere yu diis a diis il te bourre d'information yoo xamante ni yu sérieuse lay doon ba sa bopp bi yow tu te demandes lii naka nga koy retenir pour ma divertir damay dem seetaan yi Bougane Gueye Dany xam nga loolu bu ñu eggee foofu ci ab dëkk yow nga ne tu veux devenir un président de la république c'est grave alors que yow yaa ngi naan que yow da ngay jàppale waa Bakel lancé nga sax cagnotte entre autres te yow ndimbal googu yëpp démbal bi ma jotee sama information vérifiée pa Ousmane hmm. dama ne 60 cartons d'eau de javel dafa yóbbu preuve à l'appui su ngeen bëggee ma woote léegi ki nga xamante ni moo géré tey sécurité alimentaire bi foofu ca Bakel ñoom la ko jox ci seen loxo 60 cartons d'eau de javel loolu mooy ndimbal li wala tintamarre bi kese da ci bëggoon mun naa raxasul woowaale ko ah nañu baal tamit nañu baal nañu baal rek bugaan ñun tolluñ ci lii dañuy dëgg ma ay ay élection yoo xamante ni yu ama am solo la yoo xamante ni suñu ëllëg da cee da cee da cee da cee dépendre war a taxawal haute cour de la justice amay ministres yoo xamante ne dañ leen war a jàpp nag du ñu waxante dëgg ah. dañ maa ngi lay ziar. delloo ziar Salma noo def maa ngi en direct yaa ngi au parleur. voilà comme niñ ko convenir yaa ngi ci jàmm. yaayaa maa ngi lay ziar ñu présenté waat. delloo ziar donc salaamaaleykum population sénégalaise. maa ngi nuyu. képp kuy ki nekk si plateau bi. sans limite. waaw ah, loolu voilà di nuyu plateau sans limite voilà di nuyu population sénégalaise yëpp. voilà man la Moussa Konaté euh, de euh, Yaya Konaté Yaya Konaté bi ma xam ne si dëkk bi. Mhm. voilà donc di natif de Bakel bokk si jeunesse bakelwaale. voilà bokk si jeunesse bakelwaale. Mhm. léegi est-ce mën nga ñëwaat euh, sur le point de ce qui se passe là ci dons yi nga xamante ni andi nañ ko foofu dons yi nga xamante ni gouvernement bi andi na ko foofu ak euh, opposition bi. voilà noonu la euh, comme ni ñu ni ñu leen ko waxee démb rek xam ngeen depuis affaire bu mu commencé voilà ñun jeunesse Bakel waa dañoo mobilisé wu voilà nekk derrière nos autorités c'est-à-dire la maire le conseil départemental le préfet. voilà doon jàppale lépp luñ soxla ñu ñëw intervenir si jàppale leen xool liggéey bi nu muy demee donc par la suite les deux premiers jours yi fekkoon na dara ñëwul woon donc ñu ñoo doon décarcassé wu di def ay cagnotte ainsi de suite pour jàppale population yooyu mm-hmm. mais bu ñu demee ba troisième jour voire quatrième jour voilà ñu commencé gis conteneurs yi di ñëw remorque yi di ñëw ñuy indi matériels yi donc des tentes et tout et tout et ñu gis ne vraiment population bi ñëpp pour impliqué wu nañ si donc que ça soit les éclaireurs la euh, la Croix-Rouge et autres bonne volonté voilà ba bagages yi bi ñuy ñëwee fële lañ lañ leen teg mooy gundeen si berge ba mhm. voilà foofu la gaal yi di ñëw ñu chargé di koy jël yóbbu ko si les zones inondées ah. kon tey yéen waaw bu ngeen bu ngeen toogee dégg ñu naan leen autorités yi taxawuñu leen defuñu li leen war euh, ban réponse nga mën a andi par rapport à saa yéen fa dëkk loolu loolu ñun euh, intersel ñuy wax loolu ay politiciens lañu dañ fi nekk pour yàq sinon billaay wallaay boo fa demee li ngay gis ci matériel bi état bi du xaaj du jeex ñun ñun on a été euh, sur dem nañ village bu nekk dem nañ fa mais village ñu dem tamit am nga bon ñi koy wax ay ay ay citoyen la ñuy rek mais normalement ñi ñuy génnee information yooyu si kañ lañ war a dem ce son les sous-préfets wala le les les chefs de village. Hmm. chef de village bu nekk dañ lay indi say matériel et puis vraiment macha allah. RAS waaye léegi ma ne Bakel mi ngi tàkk wala lu fa xew. Bakel tàkkul de comme ni ma la ko waxee direct ba démb rek Bakel tàkkul fii jàmm fi nekk on a fait le tour de Bakel démb bu ñu defee live bi. on a def fait le tour de Bakel gis nga du romb nga vulgarisateur yi pneu yi teg. Mhm. xanaa pneu pneu yooyu jekk nañ si taal. mais taaluñu benn pneu fii nii Bakel tout est ok. d' accord bu ñu paree laaj bi pour wetu gendarmerie démb. léegi ma euh, ki géré wàllum alimentation bi dafa ne woon 60 cartons d'eau de javel la Bougane Gueye Dany ak Anta Babacar andi foofu noonu. voilà donc par rapport à ça. xam nga démb euh, passé woon naa leen pour ngeen waxtaan donc mu jox la information yi mu si am. Mhm. man depuis bi yónnee naa ko message na ni vraiment tey war naa dugg si temps limite. Mhm. def intervenir donc bëgg naa am yéen dana yi. Mhm. mais jusqu'à présent yónnee wu ma ko je le comprends aussi parce que boo xoolee ça fait plus d'une euh, plus d'une semaine. ñu nekk sur le terrain donc liggéey bi dafa bëri woon si ñoom. dafa pas comme mu ko waxee sax nee na presque chaque jour. bu bu nelaw bu bu buy deux heures xaw ma trois heures temps lay lay am nelaw par jour xam nga loolu dafa métti. dafa métti yaayaa léegi comme dañu nekk en direct. maa ngi lay remercier après dinañu déggante waa dégg nga. incha allah voilà voilà incha allah ñoo ko ko bokk. waaw dinañ ko dégg merci. ñu koy gërëm bu baax tuuxaan moom tekki tubay rek. <laughs> jërëjëf Salma Ngone kon finalement na loi bi appliqué wu ci Bougane Gueye Dany mi ñu teg loxo jamono jii ñu war a jàkkaarloog procureur bu Tamba. balaa ñu ñëw ci Bougane. journaliste dañu war a jël seen responsabilité foog naa wax nañ ko fi waxaat ko fi mënuma gëm nga yor sa tele mm. yor sa rajo àdduna yëpp di la seetaan nga toog di wax ay kàddu yoo xam du dëgg télé boo xam ne ku contre Ousmane Sonko fa ngay dem télé boo xam ne kuy saaga chroniqueur yi fa ngay dem kuy wax lu ñaaw fa ngay dem war nga mën a xoolaat sa bopp na defaat teleem seen TV nekkoon